moom li muy woote dëgg la Saalixu ñaan yàlla indi leen giléem goo xam ne ak doomam ñu ngi bàyyi ko ci benn montagne ñaan yàlla rek montagne bi matu dal li wasin génne giléem giléem gi te mi ngi ñëw ànd ak rakam ànd doomam xaalu ba mu ko defee nag ñoom ñu yee ji saale ñu ne xaalu ñu ne ko yaa saalixu yow saalixu kunte nekkoon na fii nga fii naa ci ñun marju woon di kuñ yaakaar yow saalihu mii bett nga ñu de ndax yow da ngaa nekkoon nit koo xam ne xale boo xam ne dañoo yaakaar ne ëllëg dina nekk xale bu tekki boo am njëriñ xabla haza njëkk li léeg ngay feeñal de njëkk yi ngay feeñal daal dañoo amoon ci yow yaakaar bu rëy gannaaw loolu loo def xabla haza njëkk njëkk li li ngay feeñal etan xaanaa ndax da nga xaaye ñu an naa bu dabu nu daamu xat maa yaabudu la jaamu na ko abaaw ah, naa ay bàyyi sunu moo ndax yow saalixu nag nga ñëw léegi di ñu dukkee yoo xam ne ñun xamuñ ko di ñu aaye ñu jaamu yi nga xam ne ñoom la ñuy bàyyi daan jaamu waaye na naa naka nun dafiy cekkin way nekk lañu ci sikk bi ma tëddu naa ci la nga ñu ngi dee jëm ci jëm ci moom mur yi bin bu daa ji tàbbal ci sikk de ñun ni wax sax dañoo sikk ndax dëgg naam déet sëkk sikk nañ ci li leen daawuda li leen saalihu indil sikk goo xam ne daf leen di gën a xóotalal seen sikk rek moo tax nit buy jéem na jéem lu baax ndax li ngay jéem def ci sa itte waxtu wu nekk yàlla dina la ci woon loo xam ne da koy gën a da nga gën a sóobu yàlla bu fekkee yàlla dina la ko yombalal su fekkee lu baax la lu baax la pour yow alhamdulilah su fekkee lu bon la itam lu bon la pour yow waaye yàlla moom amul intérêt di sànq jaamam di gënale jaamam ci kaw jaamam waaye lu jaamam tànn rek pour boppam ci loolu la koy dimbale su fekkee tànn na lu baax lu baax la ci la koy saxal ci la koy dimbale waxtu wu nekk mu koy euh, yëgal ak di ko won lu dalal xolam ci lu baax li mu nekk su fekkee safaan nga indi moom itam waxtu wu nekk dana lay génneel yoo xam ne waxtu wu nekk dangay ngay gën a sukkandiku rek ne yow yaa nekk ci dëgg yaa wax dëgg moo tax kuy tànn na tànn lu baax yal nañu yàlla dimbale ñu tànn lu baax yàlla nag nee na tànn nekkul ci seen loxo man yàlla may tànn man ma man yàlla may tànn lu ma neex de mu ne waaye naa naka nun la fii sikkin way nekk lañu ci sikk ñun li ngay oote sax dañ koo sikk mais matadoo naa te da nga ooñu ilay jëm ci moom de li ngay ooñu li ñuy ooñu jëm ci nañ nañ ñëw ci nañ ñëw wéetal yàlla loolu daal ñun sikki sàkkanañ ci murid bi mu daal di tàbbal ci sikki de sikki goo xam ne waxtu nekk rek daf lay gën a sikkloo de xaala mu ne saalixu yaa qawmi yéenu nit sama araaytum solati leen ma in kuntu nekk naa ala bayyinatin ci bayaan ci biddal min bi mu tukkee ci borom sama waataani mu jox ma min mu tukkee ci moom rahmatan ak yonant fa ah, yéen nit ñi waxal wax leen ma su fekkee man maa ngi nekk ci dëgg goo xam ne yàlla moo ma ko woon yàlla moo ko may ba pare yàlla moo ma may ak yonant ndax da ngeen a bëgg yooyu yëpp ma bàyyi ko ñëw topp leen yéen bu boobaa lu ngeen may dolli perte rek ngeen may dolli de bon nag na ngeen xam ne yéen tamit li ngeen may oo man du ma leen uy ndax jëlewu ma ci lu bu boobaa du ci jëlee lu dut perte bon nag fa ma neen sori bu boobaa sax bu ma leen uyoo kan dana mu tere ma min na laahi ci mbugalam yàlla su ma ñëwee fekk si leen ci li ngeen may oo kan moom mooy musal nag bu mbugalam yàlla wàccee ina saytu ne mooy naa ko fama tasiduuna nii dolli ci leen ma xeyrat fama tasiduuna nii dolli ci leen ma ci ndigal li ngeen may ndigal xëy na tax sëriñ du dëkk perte rek perte rek ngeen may dolli ci di ngeen may digal de bon seen digal loolu man tamit du ko nangu ñoom bañ nañ nekk seen ndigalam ndigal yonent yàlla Moussa duñ ko Yusuf euh, Saalihu duñ ko nangu duñ ko gëm yonent yàlla Saalihu itam nee na leen yéen tamit di ngeen may oo oh, du ma ko nangu du ma ko gëm ndax dooleeku ma ci lu perte rek de waaye yaa xam ne mu ne leen yéen samay nit haasihi li leen akatullaahi ak yàlla la lii moom jileem ak yàlla la lakum di kaaw di eh, di aayatan di kaaw teef lakum yee leen comme ni ngeen ko ñaanee woon de léegi nag kéemtaan gi ngeen doon ñaan ne naa leen ko indil mi ngi nii gileem gii gileem ak yàlla la de fazaruha bàyyi leen ko taakul mu lekk fi ardilaa ci suufa si yàlla si wala tamassuha bu leen jot ko bi suuin ci loj de bàyyi leen gileem gi nag ci suufa si yàlla si mu nekk fi noo xam ne mu nekkee fi noo xam ne seen njëriñ la di njëriñam moom de suuf seen suuf sàng noonu séddale naa ko seen diggante gileem gi su subaa ngeen bàyyi gileem gi di nekk ci suuf yëpp ndox ak lu ñuy gàncax yëpp mu lekk ko yéen du ngeen du ngeen bu boobaa du ngeen rot du ngeen def dara bàyyi leen gileem gi yëpp mu moom ko su beneen bés bi ñëwee yéen tamit ngeen jël yooyu yëpp du ngeen jox gileem gi gileem gi du jël de ñu nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu mu yàgg ñu ne ah waaye sàppi nañu waay dal di bañ fekk waxoon na leen nag bu leen bu leen soj giléem gi soj mooy rey mooy rey giléem gi waaye soj nag mooy ñu dagg ñeenti sidditam yi nga xam ne mooy taxaw ñu dagg sidditam yooyu ba nga xam ne giléem gi daanu na ñu door ko mën a rey mu ne bu leen ko def bu leen bu leen rey giléem gi fa yaaxusakum te yàpp leen mag azabun mbugal qaribun mu daa ji jege ci rey gee ngeen ko rey de bu ngeen reyee gi dem gi rek bu ngeen xam ne mbugal la ci topp de mbugal mu métti faaxaruha ñu loj ko ñu loj gileem nga rey ko ba pare ñu ne rey tong tong séddoo ku nekk yu jël sa saam yóbbu sa kër ko defee nag ñu ñëw ci saale ne ko ñun rey nañ gileem séddoo nañ ko ku ne jël na sa saam yóbbu sa kër saale ko ne leen lu wax ñu ne ko ŋaax na ñetti yoon mu ne bon ñetti fan moo leen dese ci àddina bi ñetti fan moo leen dese ci àddina ngeen dee yéen ñëpp ngeen ala ko yéen ñëpp yonent yàlla saalixu nitam ñi wax nañ ko ne andil ñu kéemtaan boo xam ne ci lañ lay gëmee kéemtaan bi yonent yàlla saalixu ñaan na ko yàlla yàlla may na ko ko mooy indil na leen giléem goo xam ne waxtu wu nekk dañuy ratte rek ba mu ko defee nag waaye giléem nga ñëw na ci ñoom nga xam leen nit kéemtaan yi muy laaj pour gëm kéemtaan yooyu mën na koo réeral ndax du ko tax a gëm ndax kéemtaan yooyu ñu yoon yonent yàlla saaliw yonent yàlla saaliw indi na ko wax leen nag nii ngeen di nekkee moom ni ñuy nekkee ni ñu war a nekkee moom jafe ak ñoom rek ñu daal di koy rey séddoo ko bon nag maa ngi laaj kéemtaan maa ngi xaar maa ngi xaar kéemtaan ci yonent bi walla ci wàlliyu bi wala def na kéemtaan lii loolu taxulaa gëm yàlla bu boobaa kéemtaan nga gëm waaye gëmoo yàlla booy gëm yàlla sa digganteeg yàlla moom doo ci jaarale dara dangay gëm yàlla rek mu jeex di la jaamu yi nga koy jaamu sax alxuraan yi ngay jàng yooyu yëpp jaarale woo ko sa digganteeg yàlla yooyu da koy def rek ndax yàlla ma sant ne naa ko def waaye du moom moo ma tax a jóg man yàlla moo ma tax a jóg booy jàngal xuraan yàlla ma sant ne naa jàngal xuraan loolu ngay yëkk a gis booy julli yàlla ma sant ne naa julli mi ngi mel ni nit ak kilifaam rek bu ko kilifaam ne defal lii mu def ko def ko nag ànd kook mbig mbégte waaye nag su fekkee da ngaa jàpp ne yooyu yëpp moom ngay jaarale sa diggante ak yàlla bon ba tey mucc goo ci bokkaale de ndax yaa ngi bokkaale bokkaale goo xam ne bokkaale gu nëbbu la bokkaale gu ndaw la ndax yàlla rek yàlla rek kese kese moom la nit war a jaamu de moo tax yàlla buy wax ak yonent yi nañ dem ci ni ñi daf leen di wax ne jaamu leen yàlla wabudullaha moom rek la ñuy wax jaamu leen yàlla bu leen jaamu leneen lu dul yàlla de seen jaamu gi ngeen di jaamu sax bu leen ko jaamu jaamu leen yàlla rek bu ko defee nag bu boobaa sa jaamu boobu lay door a dugg palaasam de mu ne ñu ne ko mu ne leen ñetti fan moo leen dese ci kaw suuf ngeen ngeen dee yéen ñëpp ñu ne ko ah ngay wax rek luy tegtalu loolu mu ne bu ngeen xëyee da ngeen di xëy yéen ñëpp seen karkan yi mel ni da ngeen di diwoo doom ñu daal di xëy rek kenn ku nekk gis sa morom ne ko ah xanaa yow da nga doon diwoo doom mu ne ko déedéet mu ne bu gannaaw suba yéen ñëpp da ngeen di mbokk ci gannaaw suba sa ñoom ñëpp ñu mbokk ku gis sa morom rek ah waa yow ñetteeli fan ba nag yéen ñëpp dangeen ngeen di ñuul kuk ba mu ko defee ñetteeli fan ba ku gis sa morom rek dal di waaw ndaxam bon li ñu Yuusufa waxoon tax yàlla di leen wax ne gannaaw ñetti fan dangeen ngeen alaku ndax bu ñetti fan yi ñëwee ñu alaku bon duñ yëg duñ yëg mbugal mi ndax alaku nañ jeex nañ dootuñu yëg de dee nañ jeex na waaye nag dafa bëgg ñu yëg mbugal mi di ci xalaat gannaaw ñetti fan dangeen ngeen alaku ba pare jox len ay mandarga ngi gisee mandarga yi rek commencé nak di yëg ci sen bop ne ne ne ne mbuga la ngi ñew bu ko do loolu tax yalla wax len ne len xaar len ñetti fan ñetti gannaaw ñetti fan yéen ñepp da ngeen alako de gannaaw ñetti fan yéen ñom ñepp alako nañ <coughs> tama taw yóbbalu len fii di yeerukum ci kër seen salaasata di tam ñetti fan gannaaw ñetti fan yooyu yeen ñepp da ngeen alako de zalika lolé wadun waa mooy mooy mooy ab dëxal seen de xeeru maksuubin bu dee buñ bu du buñ nar fii ci moom de yàlla dëxal boobu la leen jox te yàlla du nar de falammaa jaa amrunaa ba dikkee mbiram xalak suñu ak ñoom na jey naa ñu musal saalihan saalih wala zina ak ñaaña maa waan nañu ak moom ñi gëmoon saalih ak ànd ñoom ñëpp yàlla musal na leen wana je bi rahmatin ci yërmande min na mu ci ñun yàlla musal na leen ci yërmande gu yugee ci ñun de wa min xisi yow ma yidin ak ci torox ak bés booba inna rabbaka naka waram sax woo moom alqawi mooy aji dëxal ci nguuram alasis mooy aji nodde waa xase ta jàpp lazina ñaaña zalamu tooñ nañu sayxatu xaacuk jibril fa asbahu ñu xëy fii diyaarihim ci kër seen jaasimina mbir mu ñuy woy boof ci seeni hoom jaasimina mbir mu ñuy woy boof ci seeni hoom mbir mu ñuy woy xalaku de ñu xëy ñoom ñëpp hoom sukk seeni hoom ñoom ñëpp halaku nañ de dee nañ kan lam yax naw daanaka nekkuñ woon fiyaa ca dëkk ba ala waawee boo doon xalkare la aadin ñaan la le samuuda ala ala dëgg la inna samuuda naka samuud kafaroo we dinañu rabbahum borom seen ala dëgg boo doon xalkare li ma li samuuda ñaan la samuud de yàlla mu ne ñu xëy ñoom ñëpp seen dëkk yi mel ni dara nekku foon ñoom ñëpp alaku nañ mu leen di wax nag ñoom ñoo xalak seen bopp de ndax ñoo weddi weddi ba weddi loo xam ne ñoom ñoo ko ñaanoon mu ñëw si ñoom ñu weddaale ko bon nag yàlla alake na ñëw na ak ñoom ndax ñoom seen weddi gi xéefar ñaari xaaj lañ am na xéefar yoo xam ne dañoo wax ne gëmuñ yàlla kafaru bi rabbihim la wax kafaru bi rabbihim seen borom lañu weddi waaye nangu nañ ne mi ngi fi waaye dañ koo dañ koo nangulul rek li mu wax nanguwuñ ko ak ñoo xam ne kafaru rabbahum ñoo xam ne ñoom dañ ne yàlla xamul jeex na amul sax fu ñuy jàpp tuuti tuuti yàlla xamul rek lañ wax boo demee aate yëpp noonu lañ mel am na aate yoo xam ne nangu nañ lu ñuy tuddee ak rububiya rububiya mooy ku moom ku moom mbindeef yi am na ku moom mbindeef yi am na loolu nangu nañ ko weddiwuñ ko waaye nag mbindeef yooyu nga xam ne yàlla moom ñoom ñëpp a yem yónnante amut euh, diine amut dara amut li des rek mooy liggéey ci àddina bi dundal ko waaye lu ñuy yaakaar ëllëg ne yónnante fi yàlla ko yónni ki yàlla la sant nga jaamu ko yooyu yëpp ñu amut de nangu nañ rek ya yàlla moo leen moom ñoom ñëpp yàlla moo ñu moom ñoom la ñuy tuddee rububiyuuna ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ñetti xaaj yooyu lañ am na ñoo xam ne dañoo wax ne yàlla amut mutlaqan aate yi aate yu mat sëkk aate bu mat sëkk mooy yàlla amut muk muk am na ñoo xam ne ñoom nee nañ yàlla amut waaye yonent yooyu ñu ci gaar yooyu moo amut du dëgg gëmuñ yonent yi yàlla rek lañ gëm ne am na jeex na ñoom la ñuy wax rubu bi yu ne yi am na ñoo xam ne nag dañuy sikki sàkka boo leen waxee ñu ne ah ñun xamuñ xamuñ xamuñ ci dara ñun de xamuñ ci dara ñun de xamuñ ci dara ah ñooñu ñëpp nag ñetti kuréel yu xeefar yooyu yëpp ci buñ dee ci loolu ñuy nekk buñ dee ci loolu ñoom ñëpp safara lañ yëm de ndax yàlla wax na ak ñoom ñëpp wax na ñii wax na yàlla amut nee na leen yàlla yàlla am na yàlla wax na leen ne yàlla am na wax na leen ne qul huwa allahu ahadun yàlla am na ñi nga xam ne dañuy sikki sàkka yàlla am na mu ne zarhum fii tuxyaanihim na bàyyi leen ci seen déng-déng googu rek bañ dee ci seen déng-déng googu ñi nga xam ne nag nangu nañ ne yàlla doon na borom waaye nag yonent yi indiwuñ ko bon nag bu boobaa dañuy dañuy emale kattani yàlla gannaaw nangu nañ ne am na rek waaye lii amut lii amut lii amut bu boobaa yaa ngi nettale kattani ki nga xam ne moo la amal gannaaw nangu nga ne sama borom am na gannaaw nangu ngaa wax borom rek nangul ne borom boobu dana la sant nga def waaye borom boo xam ne du la sant nga def kooku du borom comme yàlla seytaan yi comme yàlla këram yi am nañ ay yàlla ne ay yàlla lañ waaye yàlla yoo xam ne duñ la wax defal yàlla yoo wax ne duñ la wax bàyyil kooku du yàlla pouvoir borom daf koy wone suñ pouvoir yi àddina yi sax dañuy woñe seen pouvoir yi di santaane ka tere rawatina rek koo xam ne nag yow yow kenn rek yaa am pouvoir bon nag gannaaw nangu nga ne am na nangu nga ne kooku nga nangu kooku nga nangu ne am na te mooy borom nangul ne borom boobu itam dana la sant dara de bu lay sant dara nag tàggu la yow moom ni mu gisee rek yafalu maa yuridu inna allaha yafalu maa yuridu tàgguwuma kenn diisoowu ma kenn ni ma ko gisee ni ma ko bëggee noonu rek laa koy defee de bu bu ma kenn kenn mu digal ma de ba mu ko defee nag a ah, walaxat ja dikkee na rusuluna yónun sunu ibrahima ibrahima bi bushra ci mbégte yàlla yónni na ay malaka ci ibrahim ñu ñu indil ko mbégte mbégte mi mooy lan mooy ne Ibrahima yonent Yàlla Ibrahima dana am doom te doomam jooju muy am dana am doom dana ko gis maanaam dana gis sëtam xaalu ñu na ko salaaman salaaman xaala mu ne leen mu mucc yàlla na nekk ci yéen ba mu ko defee malaaka ba ñëwee dal di yónni dal di nuyu yonent Yàlla Ibrahima salaaman ak salaamun ba mu leen gisee rek fama la bi sa saxumu an jaa bu mu dikkale leen bi ajilin ci yëkk xaniisin ude wuñ saaf ude ude wuñ mis yu de moo ba mu leen gisee rek moom moo gën a euh, moo gën a baax ci gan dal di gaaw rek dem rey benn euh, tëngëb giléem euh, nagam dal dem rek mis yu ko andi taajal leen wala mara ba mu gisee ay diyahum ay loxo seen laa tasilu yokkutit ilayhi yem ci ndab lam leen taajal nakirahum mu fank leen de mu fakk leen ba mu gisee ne taajal na leen añ taajal na leen lekk waaye ñoom ñëpp taajal luñ seen loxo yem ci ndab li ba mu ko defee Ibrahima dal di fakk fakk leen xamut xamut xamut ñii daal ndax nit boo amee ganam ñëw taajal ko teraanga gan gi bañ a lekk dinga am jaaxle Ibrahima dal dinay am jaaxle lu tax gan ñi bañ a lekk bam ko defé waw ji mu yek waw waaw gisa mu nëbb ibrahima khifatan jaqara fi nafsi ci bakkanam de minhum ci ñom bam ko defé yoon ci yàlla muus ibrahima bu ngi seenu def lolu nangu ñoo lek momi tamit mu fank mu fakk dal di xawa neub ci xolam jaaxle lutax ñi baña lek xaalu ñu ne ko la taxaf bul ragal malaaka yi tontu ko ne ko bul ragal de innaa nun ñun ay malaaka duñ lekk innaa naka ñun nag ursil naa yónnees nañu ilaa qawmi luutin ñu jëm ci nitu yónent yàlla luut ya ngir alak leen de wamraatuhu jabari yónent yàlla ibrahima xaa'imatun aji taxaw la mu eh, di di dimbale gan yi ba mu gisee ne ba mu déggee ne ñii dañoo ñëw ngir dem xalaat yi mu ci yonent yàlla Nuux mu kontaan ba ba mbërëg ci ba mbërëg fa daxikat mu mbërëg ba mbërëgee nag malaka yi fa basharnaha ñu bégal ko bi Isaaqa ci Isaaqa ñu bégal ko ne ko ah yow da nga am doom ju tudd Isaaqa wa min wara Isaaqa ci gannaaw Isaaqa Yaquba ak doom ju ñuy wax Yaquba ñu ne ko yow bégal ndax di am doom sa doom jooju itam dina am doom da danga leen gis de xaalat mu wax ne yàlla te yaa booy la te xëy askan sama aaridu dana ma jur wa na man a jusun ab taw ronk mu ne xëy man man mi màggat mi am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent ndax danaa jur waxaasa kile baali jëkkat sama cheikhan am màggat la moom tamit sama jëkkër ini ngi nii màggat la bon nag fu ñu jëlee ay doom sama jëkkër am na téeméeri at ak ñaar fukk man am naa juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent ñun ñaari màggat fu ñu ay doom <clears throat> mu ne fekkoon ne lim wax mom Ibrahima moo ko wax fekkoon ne moom moo wax ne suma jabar ji màggat la bon du ci génne noonu de waaye nag gannaaw jabar ji moom tooñkat la ñoom jigéen ñi ay tooñkat lañ ñu ne ko suñu jëkkër ju màggat ji waaw suma jëkkër ju màggat ji fu mu jëlee doom waaye su fekkoon ne Ibrahima wax ne suma jabar ju màggat ji bon dana doon yeneen affaire de dootu du yomb ci moom de inna haada naka léeg la seen mbir la ay mu dee aji kéemtaane de ba tey saarata mooy wax nañ lii daal mbir mu doy waar la de xaalu ñu ne ko ataaja bi na ndax da yen yéemu ndax da nga min amrillaahi ci kattani yàlla ndax da ngay yéemu ci kattani yàlla rahmatullahi yërmande yàlla wa barakaatu ak barkeem aleykum war na ci yéen ahlal beyti yéen waa néegab ibrahima de yàlla wàcce na ci yéen barke yéen waa néeg ibrahim naka moom yàlla xamidun kuñ sant la mu ci ay jëfam majiidun aji tedd la mu de ndax ku tedd mooy maye te kenn ñaanu ko mooy tëb rek may la ibrahima ñaanut sarata ñaanut waaye moom àgg na ci teranga foo xam ne gis nañ ne ñii bu ma leen mayee lii ma leen nar a may si dinañ ci kontaan dinañ ci bég bon nag dinaa leen ko may de te mooy doom mu may leen ay doom mu may leen doom ne leen dinaa leen may doom waaye du doom yi rek seeni sët di ngeen leen gis bala ngeen a deere te kii am na téeméeri at ak ñaar na juróom-ñeent te dinañ gis seen i loolu yàlla rek moo ko mën moo ko mën a wax ne lii lii lii lii xew bu xewoon naka lay xewee. yëpp yàlla moo ko xam ne bu nag <clears throat> jàng nañ ci gannaaw ñun ñëpp yonent yi yàlla yónni ci seeni nit ñoom ñëpp bu ñëwee du ñuy wax ak seen nit ñi wa abudullah jaamu leen yàlla wéetal leen yàlla ak jaamu bu boobaa nag jaamu yàlla mooy lan ndax jaamu yàlla mooy li ñuy def rek ñu ngi nii oor nañ julli nañ jeex na ndax loolu mooy jaamu yàlla suñ ci génnee rek jeex na mën nañoo nekk ci lu ñuy neex mu ne déedéet du loolu de jaamu yàlla mooy lu nekk ci yow rek ak waxtu wu nekk ci yow rek nga profité ko def ci loo xam ne di ci amee ngërmande yàlla ndax booy jàng suratu euh, suratu jumaa di nga fekk ne ida nudiya di salaati min yawmil jumaati fasaw ila zikrillah fasaw ila zikrillah dem leen ci jumaa ja julli ji fa ida qadaytumu salaata fantashiru yëpp ay ndigle la moo la digal ne dem ak jumaa ja julli ji waaye moo la digal ne bu julli gi gémee itam génn leen ci jumaa ji na ngeen def lii dem leen ngeen liggéey bon ba tey liggéey boobu eh, ndigal bi la jox nga julli moo la jox ndigal ne la nga liggéey bon nag liggéey boobu ba tey jaamu yàlla la moo tax bu fekkee jaamu yàlla da ko tëj rek ci loolu ngay def par bés loolu nga gis ne mooy jaamu yàlla loolu rek xaaj la ci jaamu yàlla waaye du mooy jaamu yàlla dëgg-dëgg jaamu yàlla mooy sa bopp yëpp nga soppi ko ngir eh, ndigali yàlla yi yàlla digal na la ci sa digganteeg mbokk sa diggante ak sa mbokk nit nga jaarale fa teraanga soo koy def defoo ko pour sa bopp da nga koy def parce que yàlla moo la ko sant yàlla moo la sant sa digganteeg sa njaboot nga jaarale fa lii yàlla moo la sant jaaykat nga na nga maandu booy jaay yàlla moo la digal ci jaaykat nga dangay jaay fi peese wala dangay jaay lu ñu peese loolu yëpp mu la ci digal ne boo koy def yàlla moo la ko digal na ko def nag ngir jaamu yàlla su ko defee bu boobaa la jaamu yàlla di mat waaye jaamu yàlla rek tëj ko ci jumaa ji wala tëj ci weeru koor wi bu jeexee rek jeex na loolu du jaamu yàlla waaye xaaj la ci bokkale xaaj la rek ci bokkale yàlla sax ndax foo mooy boo ko defee rek sa diggante ak yàlla jeex na <coughs> te loolu moo gën a tuuti ci lii la yàlla dénk ci àddina bi yàlla dénk na la ci àddina bi ne la dundal ko dundalal àddina bi noo koy dundalee mooy lépp loo xam ne soxla nga ko ci àddina bi nga ut ko te ut ko ci kaw njubee su fekkee soxla nga dund suuf sangoog bayal su fekkee soxla nga teen ndox suuf sangoog gasal am ndox su fekkee soxla nga waaye suuf sangoog tabaxal dëkk loolu yëpp yàlla may na la ko ne la dundale ko ci kaw suuf si emut foofu nag am na tam ne na ngeen gëstu xam-xam ndax jàng nañ démb qul unzuru maza fi samawaati wa ma fi ardi seetante leen seetante leen li nga xam ne moo nekk ci asamaani juróom-ñaar ak li nga xam ne moo nekk ci suufi juróom-ñaar gannaaw wax na seetante leen digal na leen ne leen gëstu leen ci génne xam-xam yi nga xam ne yàlla nga ko dëxañ foofu de yëpp yàlla nga ko yàlla nga ci dëxañ ay xam-xam yoo xam ne njëriñ yi nit rek moo ciy bàyyeekoo de su ko defee mu ne njëriñ yooyu nag man yàlla maa leen dëkkal ci suuf ngir ngeen génne ko ci seen ci seen i njëriñ ndax yi ngeen di def yëpp man yàlla amaluma benn njëriñ seen jullee ma njëriñ seen bañ a julli wàññiwuma dara yéen ñëpp seen bopp rek ngeen di liggéeyal seen bopp ngeen di defar xaaj naa leen nag ci ay xaaj ngeen utee ku nekk nag ak ni nga gisee ku nekk ak ni nga déggee ne noonu mooy doxal àddina nga soobu ci ñii dugal nañ dugg nañ ci àddina métier métier yi rek mooy li nga xam ne mooy doxal àddina métier mbay métier tabax métier tëgg métier euh, euh, defar lu la métier yëpp métier yooyu ci la àddina bi di dundee gis-gis la wax nañ dëgg am na ñoo xam ne itam gis nañ ne métier yooyu dëgg la ci yii dundal àddina bi la waaye métier yooyu nag su amul euh, euh, conscience boo xam ne moo koy sàmm nga def ko na ko war a defee te jublu ci defar ngir yàlla rek jubluwoo ci defar naa ci amee tur nañ ma ci déggee naa ci amee alal loolu yëpp baax na kenn yow la ko waaye nag dëgg-dëgg du loolu mooy li nga xam ne moom la ñu tabaxee àddina bi de ndax gis nga gis nga loolu tax na ñi nga xam ne ñoo ko gën a mën jaamloo ñi nga xam ne mënuñ ko ñun ñëpp jaami tubaab yi rek lañ jaami technologie ya rek lañ parce que nekk ni mënatuñoo def dara loo xam ne technologie bi bokk ci dugg na ba ci sa biir néeg ba ci sa kaw ba ngay tëdd sax boo demee ma fa mënoo ma amatoo mënatoo am jot yoo xam mënatoo am ci sa dund bu jeex tàkk te dugaloo ci internet dugaloo ci wifi du yëpp dugg nañ jël na jël nañ ci seen waxtu jël na sa jël nañ sa waxtu du gën a bëri ci sa waxtu jël nañ ko te boo toogee ba jóg loo fa def loo fa jëlee dara jëlee woo fa dara bu ko defee nag tayal loo nañ la yow dootoo liggéeyati waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo koy def xam njëriñ li ci nekk ñoom waxtu wu nekk duñ ko seetaan sax bëgguñ ko sax ndax ñoom dañ liggéey rek nañ génne rek waaye amuñ joti seetaan euh, seetaan ay ay ay ay seen yooyu ñuy def de benn acteur cinéma bu arab di toog ak ay xaritam yi waxtaan ñu ne ko ndax yow da ngay seetaan di ngay seetaan film mu ne ah lu ma koy doyee mën naa koy def lu ma ci lu ma ciy seetaan bon amu joti seetaan ko waaye yéen naa ko defal pour ngeen di seetaan de su ko defee ñoom mi ñu defal yëpp amuñ joti sax seet ba xam mi ngi defam déet de liñ ci bëgg rek mooy nañ ko am nañ nekk rek di sang nit ñi nit ñi den jaamu rek waxtu wu nekk ñuy am ci ñoom soxla rek bon loolu mooy mooy jaamu yàlla dëgg-dëgg jaamu yàlla bu ko tëj fenn lépp loo mën a def ngir yàlla rek def ko ngir yàlla salaamaaleykum sol sa yére sax sol ko ngir yàlla ndax yàlla moo la ko sant moo la wax ne solal solal sa yére yaa bani aadama xudu zinatakum inda kulli masjidin moo la ko sant solal sa yére rawatina booy dem ci jumaa solal dàll yàlla la ko sant booy sol dàll yàlla moo la ko sant dama koy sant sol ndax yàlla moo ma ko sant maa ngi koy def bu ko defee dinaa ci am njëriñ ne bu ma ko solee dàll yi dana ma musal ci tàngaayu suuf si waaye dinaa ci am ngërmande yàlla parce que yàlla sant na ma def bon nit du muy def rek ne ko tëkkaleeg ne jaamu yàlla gu ko yàlla sant mu di ko def la waaye fii rek la jaamu am maa fi dàq oor maa fi dàq julli da ngay bokkaaleeg yàlla sax te yëgoo ko de falamma zahaba ba demee naan ibrahima walis ibrahima raw jàqare ja ibrahima nag ba mu demee ba dal xam na ñi ay gan lañ ay malaaka lañ wajaatu dikkal ko musee mbégle ma ñu ñëw ñu bégalee ko ko ne ko di nga am ay doom mu dal di dal nag xelam dal mu tàmbali nag yu jaadiru naa di dàggeeg ñun de ba ko defee nag ba mu xamee ne xelam dal na ñuy ay malaaka lañ jàmm la ñuy dox mu tàmbali nag di di dagg dàggeeg lu mu ñuy wax ndax ya Ibrahima ndax Ibrahima yàlla wax na si moom yu jaadiru naa muy dàggeeg ñun fii xaw du duutin ci mbiram yonent yàlla lool inna Ibrahima naka Ibrahima la xalimun aji ñëwe aji aji ñëweti la mu aji labet la mu awwaahun delloo kon la jëm si yàlla de ibrahima tàmbali nag di waranteeg malaaka yi nan leen di laaj wax malaaka dëkk boo xam ne am na ñetti téeméer ndax dëkk boo xam ne am na ñetti téeméer yi jullit ndax dëkk boobu du ngeen ko alak ñu ne ko déedéet mu ne dëkk boo xam ne am na ñaari téeméeri jullit ndax dëkk boobu da ngeen ko alak ñu ne déedéet ndax dëkk boo xam ne am na ñeent fukki jullit ndax dëkk boobu du ko alak ñu ne ko déedéet ñu ne ko mu ne leen ndax dëkk boo xam ne am na jullit benn benn jullit bu baax bu dëggu ndax dëkk boobu da ko alak ñu ne ko déedéet man noonu la yonent yàlla Ibrahima lewetee bëggul sax ñu alak nit yonent yàlla luut yi ndax am yërmande ci ñoom de ndax yàlla sant na jaam yi ñu amante yërmande ci seen biir nañ amante yërmande ci seen biir bon yonent yàlla Ibrahima dégg na loolu xam na ko ñi nga xam ne sax yàlla yónni na ay malaaka ne nañ leen alak mu ngi leen di defar intervention ngir yàlla yërëm leen bon kooku moom xam na li tax yàlla wax ne yërëm yërëmante leen de ba mu ko defee nag yàlla daal di koy tontu ne ko yaa Ibrahima yow Ibrahima aari dëddal an haza walis ji le werante ji ji le dagge yow Ibrahima toppal fële jógal ci dagg gi ngay daggeeg ñun innahu naka lu mbi tey mbit xat jaa dikk am amru rabbika mbiram borom sa ci xalaat ko nit nit yonent yàlla lut yi yàlla dogalam ñëw na ngir ne yonent yàlla nit yonent yàlla lut yi nañ alaku de te loolu nag mooy sultaanu al uluhiya sultaanu rububiya kattani yàlla ñëw na dogalam ñëw na kenn mënu koo delloo gannaaw de sultaanu rububiya wa sultaanul uluhiya kenn mënu koo delloo gannaaw te lool ñëw na de way nahum naka ñoom aatihim aji dikkal la leen azabun bugal xayru mardudin mu di mu delloo mbugal mi ñëw na te kenn du ko delloo de wala ma jaat ba dikkee rusuluna ak yonentu sunu bañ ko defee bañ jógee ci Ibrahima nag dem ci yonent yàlla Luut wala ma jaat ba dikkee rusuluna ak yonentu sunu luutan luut si eh, mu jàq biim ci ñoom ba mu leen gisee rek dal di jàq lool ndax xam na ne moos tey <coughs> di nitam yi dana ñëw andi fitna de wax daa xatam xat biim ci ñoom zaraan dënn dëndam dal di xat lool du ci gan ñi waaye xam na li nga xam ne moo nar a xew de ci nitam yi waqaala moo wax ne haada lii yow mun bis laa si mun bu dee aji jafe bésu tey bii de bés bu jafe la ci man de wajaahu dikkal ko xaw mu nitam ña yuhraawu na mbit mu ñuy way gaaw de mbit mu ñuy way yàkkamti ilayhi jëm ci moom fekk yonent yàlla Muusa yonent yàlla Lut ba nga xamee ne nitam yi sonnal nañ ko ci ganam yi bu bu amee gan rek ñu ñëw di leen laal ci dubur mu dal mer nag gàddaay ba mu gàddaayee dal di génn dëkk ba dem dëkk dem dem uti dëkkam dëkk fa ba ko defee jabaram kenn la woon ci ñoom ci yéefar yi mu ne leen muy leen rek su fekkee am na ay gan fekkee bëccëg la dina taal safara bu ngeen gisee saxaat rek xam leen ne am na gan ñëw leen su fekkee guddi la itam dina taal safara bu ngeen gisee safara su tàkk rek guddi xam leen ne dama leen di yëgal ne am na ay gan ba mu ko defee nag <coughs> bi malaka yi ñëwee <coughs> jabar ji dal di taal safara ba mu ko defee ñu seen saxaat si bañ seen saxat si rek dal di njëkkalante ba ñu ñëw fekk eh, jibril ñëw na gani gani yonent yàlla lu ci ñëw nañ ñu ne juróom-ñaar lañ ñu ne eh, ñeent lañ ñu ne ñett lañ lu mënti am am na gan ñoo xam ne gani malaaka lañ ñëw nañ ci moom ba mu ko defee ba gaa yi ñëwee rek yéeg na gan yi ñëw na ñoom tamit ñu daal di waaxu rek daal di ñëw biñ ñëwee kenn rek yootu ay waxambaane yu rafet ay waxambaane tooyam rafet lañ ba mu ko daal di tëb rek songu jibril lëng yonent yàlla Luut nag di wax ak ñoom <coughs> ne xaasaali la yow moom des naa xi bu daa ji jafe bés bii de bés bu jafe la ci man wajaahu dikkal ko xamoo nitam ña bañ xamee ne am na ay gan yu yufrau na bit mu ñuy way gaaw de ñu dal di gaaw rek ñëw i ilayhi jëm ci moom wa man xablu ca njëkk loolu kanu nekkoon nañu yaamalu na di jëf sa yaati ay ñaawteef seen ak seen i gande mu ne ñu ngi daw nag jëmal si gan yoon ci yàlla loot yi te njëkk loolu loolu lañ daan def gan yi nga xam ne daan ñëw ci yoon ci yàlla luut de bu yoon ci yàlla amee luut rek ñu jël leen di leen di leen laal ci dubur xaala mu ne yaa xaw mi yéenu nit sama xaawala ñi le banaati yaay doom suma jigéen lañ suma doom jigéen yaa ngi nii bu leen bëggee may leen leen ngeen sey ak ñoom mun na ñoom atharu ñoo gën a laab lakum ñeer leen fattaqullaaha ragal leen yàlla wala tuxzuuni bu leen toroxal ma fii day fii ci ay gan sama ñu ne ko ya toppal fale xam nga sa jigéen ñi sa doomi jigéen ñi ñun amuñ ci ñoom soxla ba mu ko defee nag mu mu wax ak ñoom fa taqulaa ragal leen yàlla wala taxzuni te bu leen toroxal ma fii day ci ay gan sama de alaysa ndax nekkul minkum ci yéen rajulun waaye rashidun ju aji jub yoo xam ne dana mu dana dana mu leen digal lu baax de xaalu ñu ne ko yow lool laqad alimta xam nga maa la naa dee di ñaal ñu fii banaatika ci doom jigéen semaine xaqin xaajo xam nga na ñun soxlawuñ sa doom yu jigéen ñi de waaye naka naka yow la taala moo da nga xam maano ri du nañu nam ma yow liñ bëgg xam nga ko kon booy ba bàyyi rek mooy sa góor ñi ñoom lañ bëgg ñu ci seen kaw de ba ko defee nag yonent yàlla lóot dal di jàmbatu xaala mu ne la woon na li xelante ko nekk ñeel ma bikum ci yéen xuwatan kattan aka neexoon maam ci seen kaw kattan aw aawi ikima tappu ilaa rukunin jëm ci eh, mbooloo shadidin jëm ci mbooloo shadidin mu di aji dëxër de wala boog ma am mbooloo moo xam ne ma am jiit goo xam ne danaa mën a sukkandiku ci ñoom xeex ak yéen de yonent mu ne am na ko kay def koo gisul de dam defee nag waxambaane yi dal di songu malaaka yi songu jibril bañ songee jibril jibril dal di laal jël gi laal ko rek mu ta mu takkoog mu mel ni gannaaw gi amatul ay bët amatul gémmiñ amatul bakkan kanam gi mel ni gannaaw gi ñoom ñëpp ñu kum daal rek nga mel noonu ñoom ñëpp seen kanam yi amatul ñu mel ni benn bant bu den sampal foofu seen bo seen doq yi rek ba mu ko defee nag ñu xam ne ñoom tamit ñoo xam ne xarkare ñëw na de xaalu yaa luut inna ñuy waxe duutu nag ñoom itam malaaka yi ñu ngay dalal yonent yàlla luut ne ko yaa luutu yow luutu inna naka ñun rusulu rabbika ay yónent ci borom sañ la sa sa borom moo ñu yónni de lan yasilu xag si xag si tuñu ilayka jëm ci yow de ñoom duñu agsi ci yow fas rañaanal bi ahdika ci ñooñ sa biqitin ci dog mi ne day ci guddi de léegi ñoom duñu agsi ci yow waaye léegi bu guddi jotee rek jëlal ci guddi gi benn dog nga ànd ak sa nit ñi ngeen ànd génn dëkk bii nga xam ne seeni borom dañu yàlla ko de wala yaltafit bu geestoo minkum ci yéen ahadun kenn bu ngeen di dem nag bu leen gestoo dem leen rek ndax bu ngeen gestoo di ngeen gis nii xew ci seen dëkk bi idam raataka dara jabar sa sa jabar nag moom bu eboo mu gestoo mu bañee mu mu eboo gestoo ndax ci mu mi ci lay ci lay bokk ndax kenn la woon ci ñoom innahu na ko moom sa jabar jooju musibuha aji jot la ko ma maa asaabahum la dana mu jot leen de sa jabar jooju li nga xam ne mooy dal sa nit ñi dana dal sa jabar ji de inna maw'iduhum naka dëxaluwaay seen a sopp suba la de suba rek ñoom ñëpp ñu la ko de ba mu ko defee yonent yàlla lóot kontaan ba ñii dinañ xalak ko ñu ne ko waaw waaw suba rek mu ne suba sori na di nu ngeen doon xalak léegi rek mu ne alaysa suba ndax de suba bi xarib ñu ne ko malaka yi ne ko alaysa suba ndax de suba bi xarib muy ayi jege ay yow tamit li nga muñ yëpp suba jege na di mu dal da ne suba jege na de falamma abdi ba dikkee amruna bi rek xalak suñu ak ñom kawesen ñu def aaliyaha way sen safira ha ñu way suufe sen ba nga xamé ne dem nañ ba nga xamné alkare na ñi nga xamné ño doon yi doon sang yi ño doon sang nit ñi ah ñom ñep ño nekkon ci kaw ñom ñep da yalla juutal rek lem leen jibril mu ne ñu toog bëggu guddi jibril ñew senti dëkk bi sempi ko yëkkati ba ca kaw mu ne mu ne mu ne mu ne ndox tuuruwut ganaar sabut xaj bawut kuy nelaw xeewut dara yàquwut mu yëkkati ba ca kaw rek mu dal di dëpp ko biir suuf si noonu leen yàlla xalagee de ba mu ko defee nag waam tar naa ñu taw aleem si ñoom xijaaratan ay doj ñu dal di taw ci seen kaw ay doj min si jiilin mu tukkee ca banab si jiil ba de ca banab safara ba ñu tuddee si jiil ban yiñ taw ci seen kaw ci foofu la bàyyeekoo de man du din yu toftale yu de ah, toftale ci seen kaw mu sawamatal mu de mu xamal doj wu nekk xamal nañ ko ci ki nga xam ne moom lay dal bu ko defee doj woowu bu jógee bu dalee ci sa kaw rek dal ci boppam nit ki dal di génn ci duburam ñoom ñëpp noonu lañ xalakoo de inda rabbika tukkee fa borom sa te loolu yëpp ci yàlla la bàyyi ko de wama yedeet ñoom doj yooya wala seen dëkk yooya bi bàyyi din muy aji sori mina zalimina ci way tooñe ci waa Makka yi doj yooya ñu wàcce woon ci nitu xawmu Luut ya ak dëkk booba soriwul leen dara bon nag war ngeen a xalaat yéen tamit li ngeen war a nekkeek seen yonent bala ngeen a alaku de allahumma salli ala sayyidina muhammad nasrul haq ngeen ngeen ngeen eh, dem si kër moo leen gënal jàng kon nag dagg naa njàng fi naa ngeen dem si kër <laughs> dem kër man dem kër leen gënal jàng ban eh, jàng pour ngeen dem kër <laughs> yes yes yes yes